ci présidentielle bi ñu jëm ça Seck xamal na candidat la présidentielle bi ñu jëm ki nga xam ne mooy wala waayam bi nga xam ñoo bokkoon ci bi waxagul ni ki candidat la depuis fan ñu euh, mu ngi pour une campagne électorale xaw mu mu ni bu fekkee bari amut bu Ah, lu mel ni lu am diggante Medvedev ak euh, président Poutine amu ci xaw lu mel nii sëy bu tas lañuy jublu ndax euh, Idrissa Seck démb def na li nga xam ne mooy euh, genre séminaire ak waa parti muy réew mi bu fekkee ni moom am na kàddu gi ñu génne ne la ko boole woon la ka la taxoon mu jotee ak Abdoulaye Wade 2012 mooy troisième mandat nee nañu nee na troisième mandat moo ko la a boole ak ki nga xam ne mooy président Macky Sall waaye ñi nga xam ne ñoo ko jege ci communiqué am génn la nañu wax ni kàddu googu euh, Idrissa Seck mas ko wax donc bu fekkee ne waxu ko donc c'est-à-dire Idrissa Seck ànd na ci troisième mandat waaye lu ci mën a nekk dafa mel ni scénario bañ a amoon ci deux mille dix neuf ci loolu lañ mooy ñii taxaw ñu ne ay candidat lañu Idrissa Seck yi taxaw ne candidat la. buñ ci paré lu ci mëna nek mudi le système mudi la grande famille libérale continuer di di réew mi comme ni ñu ko defee 2019 euh parenthèse la wan ni ki nga xamné moy mooy euh, Déthié Fall Déthié Fall bi nga xam ne mu ngi ci yeewee askan wi moom it nee candidat pour présidentiel bi ñu jëm li waral candidat du turu Déthié Fall ça ne veut pas dire la fin de yeewee askan wi parce que yeewee askan wi bi ñu ko doon taxawal dañu niwoon nous ñep dañuy manko de bloc pour dem élection législative pour ñu le maximum de majorité en ko ci kaw président Macky Sall ak Bokk yakar tay am nañu taxaway bu rafet ci assemblée nationale fokk ni ñom bu ñu tassaro ke ay ay quelques leaders ñu taxaw ñu candidat la ñu bu nous avons ci candidature forcément créer condition deuxième tour boobaa ñoom ñëpp ñu mën koo def bloc ci ginnaaw kenn ci ñoom pour ñu mën koo gañeloo yooyu ay calcul politique la euh, dañ ko bàyyi stratégie politique yi ak politiciens yi ñu mën ko waxtaanee mais lu leen lu leen mën a wax ba tey mooy boo xoolee tey ci Benno Bokk Yaakaar euh, à part président Macky mën na nañu xalaat ni réew mi am na candidat bon ñeneen ñii nga xam ne ñoo fa nekk mooy AFP ak parti socialiste ba léegi kenn xamul luy seen taxawaay mais xalaat nañu ni dañuy ànd ak président Macky Sall Idrissa Seck nag ak Macky Sall est-ce que duel final dina am seen diggante loolu l'avenir seulement mënu ko mën a wax mais li nga xam ne moom lañu bëgg a waxtaan ak yéen mooy li nga xam ne mooy surtout ñu war koo njëkkee euh, mooy euh, wàllum. coow bi nga xam ne moo ñëwoon ci magistrature bi keroog bi ñu mujj wax ak yéen wax nañ leen kan moo doon kan mooy Ousmane Diagne mu nekkoon procureur général wax nañ leen taxawaay bi nga xam ne taxawu na ko ak yi nga xam ne bu ministre de la justice sañoon bu gouvernement bi sañoon du ko jox suite mooy lan mooy d'abord la plainte bi nga xam ne jox na instruction pour ko lu jëm ci Euh, maître El la Diouf deuxième plainte bi moy plainte bi nga xamné ci la justice bu sañon ki nga xamné moy Ousmane Diagne ko suite plainte bi plainte bi jëm ci soxna soosu muy euh, Diagne parce que comme ni nga xamé ñi nga ne avocat yi du police dana di yóbbu ci procureur général bu fekkee ne am na ay infraction pénale yoo xam ne xalaat ngeen ni def nañ ko ak fi nga xam ne mooy bâtonnier bu fekkee ne xalaat ngeen ni am na ay infraction disciplinaire yu ñu war a def loolu moo tax Ousmane Diagne jël na courage am à deux mains ñenn ñi nee nañu gars yi woo nañ ko xamal ko ni naka arrêté mu xamal ne ni moom citoyen sénégalais du am xaar ma yàlla ak beneen citoyen sénégalais ñu yaakaar ko moom te moom mu nekk fii pour instruire mu taxaw ne du ko def donc kenn mënul wàññi loxoom wala ndax ñu dindi ko place bi nga xam ne moom lañ ko mën a defee bu ñu xoolee départu Ousmane Diagne euh, ñu seet tamit li nga xam ne tey mooy taxawaayu bâtonnier loolu mën na jox sénégalais ñu am yaakaar ni du ñëpp bon. du ñëpp a pare pour sacrifier réew mi pour seen i intérêt personnel du ñëpp a pare pour salfaañee dëkk bi parce que ñu bëgg a neex waa kër ñàkk jàmm am na citoyen sénégalais yu bari ñu mel ni Ousmane Diagne ñu mel ni tey bâtonnier bi nga xam ne mënul na ne dafay def corporatisme maanaam ay avocat lañu comme man su ma yónnee ko ci naa gëmm bu ko defee ku mel ni euh, procureur ku mel ni président de la République mën ko boole. wala waa kër ñàkk jàmm mën ko boole ci li nga xam ne seen xarit la seen waay mais bu leen fàtte euh, déclaration bi nga xam ne moom euh, bâtonnier defoon na ko keroog ci la rentrée solennelle des cours et tribunaux keroog wax na magistrat yi loo xam ne ba àddina di tukki kenn du ko fàtte ne leen xalaat ñu xeex pour indépendance xalaat seen tëraay Babel donc bu ñu gisee taxawaay boobu. war nañu mën a ni bu ñëpp a ñëpp a bëgg seetaanu réew mi mu suux euh, jii bu à l'étape actuelle gis nañ ni ñetti avocat seen avenir mu ngi en jeu ñetti avocat ñu xalaatoon ni kenn leen lu neex def tey magistrat ñoo leen di jugé bu suba bu suba muy mardi sëgg ci li nga gaawu

am na keneen encore koo xam ne avocat am la moo di euh, maître Dialy Kane Dialy Kane kenn déggu ko ci ay saaga Dialy kenn déggu ko ci ay ay xaste moo tax Dialy kenn suspendre ko kenn aju ko donc en gros lii moom mooy euh, situation avocat yooyu ñoom seen cas dinañ ko seet rapidement mais duñ ci gën a yaakaar ku mel ni Alaaji parce que Alaaji Diouf bu leen fàttali

ay soldats yi nga ay ay israélien ay gendarme français ay euh, leneen yu yeneen pays yu ni ay militaire yu espagnol ñu ngi ci territoire sénégalais du euh, li nga xam secret la du li nga ne wax tous les jours am ay euh, seen seen seen

léegi euh, gis nañu journal l'enquête génn journal enquête, nag muy journal bu bu sérieux parce que directeur de publication muy Mamoudou Kane euh, Mamoudou Wane du moins mas nekk man sama directeur de publication je sais que des questions militaires xam na ci lu bare mais nag rappelé waat leen encore ni que am na ci réew mi comme ni ma leen ko mas tout le temps euh, Ivoiriens dañu wax ni lorsque vous invitez boo invité ay ñay pour ñu ñëw xeex sa biir salon yow yaa ci yàqule parce que yow la ñuy toog sa porcelaine tax na tey jii Sénégal mu nekkee hub de paix Sénégal mu nekk dëkk boo xam ne position bii mu nekk nga xam ne tey lépp a ngi fii or a ngi fii ñu leen wax ni euh, pétrole a ngi fii ñu leen wax ni gaz a ngi fii ñu leen wax leen ak leen a ngi fii te mu bëri ñoo xam ne ay frustré lañu mu bëri ñoo xam ne bëggoon nañ ci dara

gën a sedd livre ñaar fukki yoon ak benn mu ngi ci Tunisie mu ngi ci Maroc mu ngi ci pays yu noor yi te ngeen xalaat ni ay doomu Sénégal waxtu jii may wax ak yéen ngi fanaan ci mbedd yi waxuma immigré clandestin yi nga xam ne ñu ngi ci euh, Boza bi waxuma ñi nga xam ne ñu ngi ci suufu pont yi ca Paris mais sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci Tunisie la la waxal. kenn amul seen ligne exacte bi mais li ma bëgg sénégalais ñu fàttali ko mooy président bu Tunisie fan yi ñu génn moo def déclaration ne effectivement dafa am complot bi nga xam ne africain ñu koy def pour mën a ñëw gën a bari ba ëpp euh, naar yi seen dëkk ba tax na suba Tunisie pays africain lay nekk ñu dundi ca moom lépp li nga xam ne mooy wane ni dëkku arab la bi mu defee déclaration boobu

doomu Sénégal yi comme yeneen doomu nit ku ñuul ya nekk foofu ñu ngi leen di teg fitna ñu ngi leen di jàpp dugal leen ci kaso ñu ngi leen di dóor ñu ngi leen ñi nga xam ne liggéeyoon nañu ba am kër parce que xam naa jeune Sénégalais yi bari yoo xam ne ñi ay informaticien lañu ñu dem fa xam naa it jeune Sénégalais yi bari yoo xam ne ay étudiant lañu donc ñooñu ñëpp ku ci luwe Sénégalais yaa ngi fexe génne ko génne ko ci mbedd bi.

la xewoon en 2000, 2000, en 2000, je pense en Côte d'Ivoire euh, Abdoulaye Wade moo comme président du Sénégal bi nga xam ne Laurent Gbagbo dafa jël pouvoir bi dañu doon bind seeni journaliste ak seeni journaux wax ni euh, Sénégal mu ngi yónnee ay soldats pour ñoo attaquer li nga xam ne mooy Ivoiriens yi mais balaa booba dañ jàppoon ay africain len leen jàpp ci mbedd mi di len dóor na ne nañu génn Côte d'Ivoire ñom bu ñu génnee képp ku ñu xalaat ne africain nga amul sénégalais nga amul la dañuy jaaxle nit ñi marché ba gënoon na rëy ci Abidjan mooy marché à Djamé sénégalais yi kase wala boog sénégalais ñoo bokk ci ñi gënu na am marché yu mag foofu gaay kay menacer len mais jamono jooju ba léegi kenn amul fixation spécifique ci sénégalais yi Abdoulaye Wade kala bu mu déggee ni ñu ñuy dóor ay e burkinabé ñu ngi taal ay burkinabé ñu ngi ay burkinabé la def déclaration boobu ne les burkinabés subi en Côte d'Ivoire ce que qu'un africain nous subit en Europe nee na mu ngi ñaawlu métit bi nga xam ne métital ak rey bi nga xam ne ñu ngi koy def burkinabé yi nee na burkinabé yi ñu ngi daj ca terre ci dëkku Afrique ca Côte d'Ivoire la nga xam ne benn africain mos koo daj ca Europe Laurent Gbagbo maire

tey jii maa ngi dégg Aïssata Tall Sall ci li nga xam ne mooy sénégalais nekk Tunisie dinañ joxe numéro sénégalais bu ñuy agressé wala bu ñuy jaaxlee mu woote fa naka noonu tàppalee la ñu waxoon ci jamono yi Abdoulaye Wade boobu rue commerce nit ñi woote nañu nit ñi dañ doon daw sax kii si mais appartement naka la ñu mën a regrouper ay sénégalais ci biir appartement Sénégal en dafa war a taxaw doomam yi fu mu war a nekk. problème bi euh, case problème mu président Tunisie bi keroog mu génnee kàddoom yi la Sénégal war a organiser ay vol rapatrier ay la Sénégal war a fëgg ci taab bi wax wax ju am fulla ba nga xam ne kii di président tunisien mu dégg ko d'autant nga xam ne mooy suñu président Macky Sall mu ngi doon génn nekk euh, président de l'UA le lendemain coow lii am mais gis ngeen ko. comme ni ma waxoon ca la xewoon Tchad ca la xewoon Niger ba ñu rey nit ñu bëri nga xam ne président Macky Sall ci wax parce que kuy woote set kuy woote tàngaay da ngay fekk yow nga nekk set ñu ngi dóor ay sénégalais ñu ngi agressé ay africain tey ci Tunis ñu ngi ci mbedd yi ñu génne leen seen kër ñu ngi jaaxle amuñu fu ñu fu ñu jëm parce que bu fekkee ni ñun suñu président ñu suñu réew sénégalais ñu ngi en sécurité sénégalais kenn dóoru leen kenn rayu leen ay. 14 euh, euh, euh, personnes ñu rey amul enquête tey ñu ngi jàpp ay doomu Sénégal ñu fitna ci biir Sénégal président boobu dana am légitimité jàkkaarloo ak président Kayis ne ko li ngay def teguloo ko fenn Afrique Afrique benn la wala bu ñuy dëgg loolu ñu génnee ko ci organisation mooy unité africaine ñu génnee ko ci parce que bu fekkee ni quelle quelle plus belle preuve de bëgg bokk Afrique que de bëgg bokk Union africaine mais yow yaa ngi biir Union africaine ngeen africain dañu ñëw pour ñu envahir la doomu Sénégal yi nekk ci fitna bu ngeen xalaat rek ëpp na ko parce que bu fekkee ne diggante comme diggante Sénégal ak Gambie wala diggante Sénégal ak Guinée-Bissau wala diggante Sénégal ak Mauritanie wala diggante Sénégal ak Mali mën nga ne sax naa jaay samay bagage ma dox bu ma demee ba ci frontière bu soriwut waaye Tunisie euh, euh, euh, ay ay ay milliers de kilomètres moo dox digganteem ak Sénégal yeneen pays ñu ngi jéem a regroupé mais dinañ gis ni. Sénégal du am benn intervention bi nga xam ne daf ko war a def alors que un grand pays comme le Sénégal parce que ñun ñun ñu bëgg mooy suñu dëkk mu nekk un grand pays lañ doon xaar ci moom mooy ñu naawal ay avion ñu dem porter secours doomi Sénégal yi nga xam ne bëgg nañ ñibbi si ñu bis si leen ñeneen ñi ñu teg président tunisien waxante ak moom wax ju wax ju wax ju dëgg parce que lii une situation bi lan la ay Ivoiriens ñoo rey benn xale bu jigéen Guinéen un crime comme nous tous les jours chaque jour dans tous les pays du monde parce que raykat nit sénégalais les jamaïcain les français puisque la responsabilité pénale est individuelle nous ñu pas nous jël dugal askanu wala dugal Nous Sénégal

tey président Macky Sall mënu ko wax tax na gannaaw wax yi naka sa kandang bu ami euh, comment s'appelle Aïssata Tall Sall yi nga xam ne wax na ko Sénégal du ñu dégg sur le plan international du ñu dégg li nga xam ne mooy la tribune des nations Macky Sall dem fëgg fa table bi ne li ngay def arrêté ko mënta nekk bu leen fàtte ni euh, Sénégal en matière de protection de ses citoyens dafa am lu bëri lu des yàgg naa ko wax tout le temps su ma leen di jox exemple dama leen di jox exemple la xew fële ca Paris mooy ca consulat nga xam ne bureau gendarme ya fa nekk nekkuñu fa lu dul la plupart du temps bu ngeen indilee nit pour ñu identifier ko ne Sénégalais la ñu bind ni Sénégalais la ba nit ki bu bañee ne Sénégalais la ñu ne Sénégalais la rapatrier leen ko daloon ko Sénégal Sénégal mooy l'un des rares pays au monde boo xam ne dafay ne bu ngeen xamale sax nit

nga liggéey la ko ba neexul la nga gis beneen naar nga jaay ko te nit ñi mënut a bañ yooyu moo am ci sénégalais yi muy Liban bi nga xam ne xam naa ko muy Koweït bu am genre situation benn noonu nga xam ne ambassadeurs yi dañuy dem ba neen sénégalais yi bu leen wax ak ay journalistes bu leen wax métit bi nga xam ne da ngeen koy dund fii nga dem Congo tout dernièrement Congo Brazzaville mu doon signalé kaaw bi nga xam ne. ay autorité consulaire bu Sénégal buy joxe doomu Sénégal ñu ko dugal ci kaso yi or en temps normal le rôle des représentations consulaires des consuls et des ambassadeurs c'est de protéger leurs concitoyens tey jii fu waay natt yi fii rek ëpp na fa pour sénégalais yi nga xam ne ñu ngi Tunisie ñu ñaanal encore président de la République même bu fekkee ne mënut a génn ouvertement mu wax ndax yii mu junj ndax yii ma wax na jox. haute instruction yu dëgër ki nga xam ne mooy ambassadeur bi mu organiser li nga xam ne mooy rapatriement sénégalais yooyu parce que ñooñu xool ñu ñuy delloo si seen réew il question que doomu sénégalais ñu des parce que tey ñoom ñu ngi woote woon tey tey jii tey jii le 26 la ñu waxoon ne dañuy organiser benn marche boo xam ne ku am paaka na génne ku am xeer na génne ku am yat na génne ku am jaasi na génne pour que ñu xool naka la ñuy génnee étranger yi ci réew mi parce que li nga xam ne Euh, euh, euh, dof bi doon na ko wax ci kon bi li nga xam ne ki jàngut ki doon na ko wax ki nga xam ne ki ki mat ki ki ki ki ki ki siisu siisu maan bi mu ko doon wax ci kon bi naan suma amul liggéey gars yi ñoo tax tey président de la république bu nii bu bu Tunisie bu ubbi géej ñoom mu wax te puisque xam nañ comme ni président Macky Sall wax il faut se battre pour la conservation du pouvoir ku nekk ci nguur da ngay xeex noo mën a moyee ci nguur kayis weer yi ñu jëm.

un réseau criminel mieux de la naïveté et de la faiblesse des noirs loolu du wax wax def puisque la première voix mooy président de la République au bu de l'année c'est pas normal ci sama réew noirs yi pour euh, mais kenn ko ci mel normal C'est moo tax dëgg yàlla ci mbeddu Tunisie tey jii ci mbedd yi lañ nekk tunisiens yi organisé nañ tey seen marche le 26 mais ñu ngi leen di génnee ci kër yi ci nga xam ne am nañu euh, ay baux mooy mooy location bail de location ñu ngi leen di génnee parce que nañ ne amatuñu droit pour ñu dalal leen président Macky Sall la ñuy interpellé diplomatie sénégalaise la ñuy interpellé pas tapalekatu politiciens yi mel ni ay Aïssata Tall Sall ñu toog naan dara leen jot mais ñi nga xam ne ñu nekk sur le terrain jël responsabilité parce que sénégalais bu ñu toog naan dañuy xaar ba dal seen kaw wala dañuy xaar ba am nit ñu déjà nous ñu dans les centres de rétention alors que dara déclaration président président Tunisie ñu destin en Nous wu dégg président association des sénégalais de Tunisie dem waaw loolu mooy dëgg dem leen ci ambassade bi même bu ci appartement lañ ne ngeen toogandoo ak ñoom ci biir appartement parce que mooy le territoire sénégalais mooy minimum place bi nga xam ne kenn du ko violé bu ngeen demee ñëpp ngeen feesoo ci ambassade bi bu ñu amulee solution dinañ leen jël avion ñu dugal leen mais bu leen toog kenn ku ne ñii nekk suuf ñi nekk fenn ñi nekk fenn ngeen nekk ci fitna boo xam day permettre ñi lay ñu attaqué leen maa ngi leen di ñaanal jàmm di ni du que de tout cœur maa ngi ak di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu yi ak ci seen sen youtube kawtef tv international ginaaw bi bak bi daano ñu fas yéene na jukkil kawtef fi fi jot ci kan la may wolof dila ñaan aussi nga dem abonné su féké abonné ko te bul faté bés cloche de notification bi pour vidéo buñ duggal nga mën sé jot